Tá bom, leen fekk wala ngeen nekkoon ñoom. ci biir bi da la ñu fekk. bi ko ne teel a naa oto Ndiaga Ndiaye bi amul amul waaw man ni sax oto bi ci biir laa nekkoon. waaw amul frein. parce que chauffeur bi gis nañu depuis Diourbel moom day jékki-jékki day créer ay raccourcis ci biir kii parce que même chaque fois dañ ko doon arrêté naan ka sëñ bi dawel ndànk dawel ndànk dawel ndànk ba muy ñëw fii mais mais yéen lan moo taxoon ngeen gaare ci digg yoon lan moo taxoon. déedéet gaare wu ñu doon dawal topp ci yoon bi rek yéen mu ngi doon daw. kay taar bi moo dal suñu kaw moom kay nañ sant yàlla rek taar bee dal dal suñu kaw kenn gaañu ci kenn gaañu ci sant yàlla rek léegi Babacar jàpp ci rek grand. waaw jàpp ah, ci rek voilà grand yow bu ndaw bi euh, yàlla lu am rek yàlla ko dogal. dañu ci damay damay ndogalu yàlla. Mm-hmm. ñu ñu wàññi. nag pour ma yeneen oto yu jóge benn sens bi ñëw. ci la moom ñëw ak force amul frein dal suñu kaw dal suñu kaw mu dal suñu kaw finalement mais yàlla def na ci sutura ba kenn gaañuwul ndax bagage yi mën ko am bu keneen gaañoo woon boobaa waaye kenn gaañoo waaye du tee pare bi toj na euh, par choc bi yàqu na ginnaaw a yàqu fa arrière yëpp na mais sant yàlla di sant Serigne Sall bu baax. léegi léegi mooy suite ban suite ngeen jox ci euh, choc bi na fii. Euh, suite bi ñu xaar huissier. ñu constaté bu ko defee jéem a topp assurance. xam nga di ñaan yàlla tamit assurance bi ci war mu def ko mu def ko waaw loolu la quoi mais li mu ciy waxaat nit ñi mooy Ndiaga Ndiaye sànq Sénégal li ñu bëgg Sénégal loolu Ndiaga Ndiaye carré bi tant que juguñ Sénégal mhm. Sénégal dina yéex avancé parce que pour daw tiit ne amul frein mhm. di daw ay Touba di te bu jugee fii day demaat jëriñ waar ñeen di yóbbu Touba te amul frein te yëpp ay milliers de personnes loolu kéemaan wax dëgg yàlla euh, Mor Issa donc je pense que li nga xam ne moom lay laaj